wa saxaabatihi wa man tabi'ahum bi ixsaan ilaa yawmi diin wa radiyallaahu anil qutbil maktuum wal barzaxil ma'luum abil barakaat Seydi Ahmed ibni Mohamed ibni Saalim Tijaani wa an xalifatihi wa xalifati rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam alal itlaaq سيدنا ووسيلتنا إلى الله شيخ الإسلام وسعادة الأنام إبراهيم بن الحاج عبد الله وعن شيخ أولاد الشيخ وتلامذته سيدي وشيخ علي بن الحسن وبعد قد لا أطيل عليكم بهذه اللغة لأسباب أولا قصور وعجز البالغ عن التحدث والتعبير بهذه اللغة العويصة الصعبة المستعصية على أمثالي ثانيا وجودي أمام jahaabizati naqdi al-arabi wa fataahili al-lugha al-arabiyya wa xubaraa wa fanniyuuna fi tarbiya baaduhum zaawala al-mihnata akthara min thalaathiina sana wal baadu al-aaxar rubbama arba'iina sana wa sabab الثالث هو كون الجمهور لا يفهمون إلا لغتنا الحبيبة التي هي الولوفية وأنا أتحدث بهذه اللغة بطلاقة وأشعر براحة أكثر مما عندما كنت أتحدث باللغة العربية mbokk yi maa ngi nuyoo di ziare di ndokkeel dale ko ci ki nga xam ne mooy xalifa bu mag bi di cheikh Mouhamed Al Mahi Ibrahima Niass romb ci ki nga xam ne mooy élimaanu dëkk bi di cheikh Ahmed Tidiane Aliou Cissé ki nga xam ne mooy port parole bu pay bi di al imam Mouhamed al Mahi Ali Cissé di ziyaara itam mboolem ñi nga xam ne ñooy abnaaw cheikh yi rawatina ñi nga xam ne ñooy dundal guddi gi dale ko ci wakili daadin muy baaba Mouhamad al Amin ba ci Cheikh Mouhamad al Makki ñu ngi leen di ziyaare di tabb ci ñoom di ndokkeel ki nga xam ne nag mooy borom mbaar mu jekk mi di Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu nga xam ne soo toogee fii di wax da ngay am sentiment boo xam ne da nga xaw a am tuuti complexité ci wax ci mbaaroon mbaaram mi ndax lim fi daan bëbbal ci ay xam-xam euh, ñaareel bi mooy ñu ngi sant kilifa gi nga xam ne moo jiite euh, commission culturelle bi nga xam ne ñoo ñu jox occasion bi ñu ngi koy sant muy Cheikh Mouhamad Siraj din Ibrahima Niass di sant à travers lui tous ses collaborateurs ñi nga xam ne ñoo nekk di liggéey ak moom te ñi ci ñu ëpp ay jàngalekat lañu ay orateur lañu ay conférencier yu màgg lañu conférence bi nga xam ne nag moom la ñu sant te mooy ñu wax ci jikko yu rafet yi nga xam ne sang bu mag bi Mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama moom la am dama ko aborder ci benn façon mooy dama def benn introduction boo xam ne danaa ci wane ne jikko ju rafet moo tax a jóg lislaam lislaam jikko rek la bu ci waxtu xajee am na ñeenti point yoo xam ne moom laa jël Euh, wax jikko yi nga xam ne amoon na ko su nekkaan ci guerre ñaareel bi mooy jikko yu rafetam yi ba tey ci li nga xam ne mooy digganteem ak soxna yi te mooy jigéen maanaam nan la doon comporté moom yonent bi sallallahu alayhi wa ak jigéen ñetteel bi mooy jikko yu rafetam yi ak comportement yi amoon ak xale ñet ñeenteel bi nag te mooy bi ko tëj mooy comportement bi mu amoon ak jikkoom yu rafet yi nga xam ne moom la doon dundee ak ñi nga xam ne ay non musulman lañ ñu dowul jullit noonu laa ko tënkee euh, ci gàttal waaye xam naa comme waxtu wi dafa xat damay essayer nu mu gën a kiyee rek ma tiim koo tënk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, jikko wax naa léegi moo ñu moo tax a jóg diineem ji yoon euh, yónni gi ko yàlla yónni daf koo yónni uniquement comme ni mu ko waxee ci benn xadis ne innama bu'istu li utammima makarim al axlaq dañ maa ni uniquement pour ma mottali jikko yu rafet yi mooy jikko yu rafet amoon na fi dalewul ci moom gis nga nim réalisté waaw waxul na damaa ñëw pour indi ay jikko yu rafet waaye def ne dama koy mottali mooy fekk naa fi ay jikko am na ñu fi tàmbali woon di def lu baax waaye nag danaa ñëw man mottali ko ba mu mat loolu moo ko tax a jóg innama boobu ñëpp xam nañ ko li muy firi ci ñu dégg làkk arab li muy firi mooy adaatu xasr la mooy dafa tënk kon mission bi lépp mooy jikko rek jikko dafa am solo moo tax ma ne euh, wa ida xasunat al axlaaq taraqat al umma ila aqsa ma yumkin an yasila ilayhi al insanu min alruqiyi wannumow wa ida fasadat alaxlaaqu fi lumma fa sanataxallafu ila abcada ma yakun an yataxallafa ilay linsanu min alinxitaati wa taaxur euh, doomu aadama wala nation bu mu mun di doon jikko rek moo leen fi moo leen fa bàyyi suñ rafetalee jikko yi danañ am ci prospérité avancement ak développement loo xam ne kenn mosu ko am su fekkee ne respecté nañ jikko naka noonu itam su fekkee dañoo neenal jikko yi danañ dem ci souffrance ak dellu gannaaw foo xam ne kenn mësu faa yegg kon nation bu mu mun a doon li lay yóbbu mooy jikko ju rafet rek looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne moom jikkoo ko tax a jóg kon jikko yi euh, lu am solo lu war a lu ñu war a itteew la moo tax ma ne yàlla na yàlla yërëm chaar euh, niil wala bu la neexee chaar kinaana amiru shuara ahmad shawqi ba muy wax ne wa innama al umamu al axlaaqu ma baqiyat wa in humu dahabat axlaaquhum dahabu ne nation bu mu mun di doon euh, la ko fa bàyyi mooy jikko yu rafet yi bu jikko yu rafet yi jeexee rek nation nekkatu fa dara nekkatu fa te loolu buñ xoolee ci réew yu mel nii euh, Chine muy China ak yu mel ni Japon danañ gis loolu dara joxu leen seen développement bi ñuy nekk lu may jikko yu rafet te mooy dañoo yaru siit Saad ibn Hisham euh, saxaaba yont bi la laaj na soxnaam mooy Sayyidatuna Aïcha di ko laaj ne ko yonent bi sallallahu alayhi yan moo doon ay jikkoom yan jikko la amoon bi mu ko ko waxee mu ne ko yow xanaa jàngoo alquran mu ne ko ah kay jàng naa ko de mu ne ko kaana xuluquhu alquran yonent bi jikkoom alquran la mooy li ñeen ñuy wax ne kaana quranan yamshi al ard euh, alquran di daan jox ci kaw suuf la mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon gis nga ne euh, jikko yu rafet moo taxoon a jóg yonent bi sallallahu alayhi wa yooyu nag suñ ko jéemoon a jël ñun euh, appliqué ko defe naa ne jàmm dana am xëccoo bi am diggante jullit ñi ba tax leen a tardé ñu leen di lim ci un milliard sept cent millions de personnes te mënuñu dara yàlla jël richesse su àddina bi li ci ëpp def ko ci réewu jullit ñi waaye mënuñ dara ay mustahlikuuna lañ ay dañuy consommer rek mais mënuñoo produire dara loolu yëpp li ko def mooy ñàkk a appliquer jikko yonent bi salaa salaam ak njàngaleem di boddante ci suñu biir di xeex di xëccoo ci ay yoo xam ne yu suufe la yoo xam ne war nañ ko dépasser kon loolu mooy may noon bi mu am doole ci suñ kaw yonent bi salaa salaam nag jikkoom ñëpp xamoon nañ ko euh, melal nañ ne nit la koo xam ne nekkutoon ku ñaaw làmmiñ Euh, nekkutoon nit koo xam ne itam ku ñàkk kersa la waaye avant muy nekk sax yonent jikko yi rafet yooyu nekkoon na ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jikkoom yi da koo juddwaale duut loo xam ne dafa dem ba révélation bi ñëw mu soog a baax déedéet comme ni ko ñenn ñi di prétendre bëgg a wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, wax yi moo ko defar waaye Euh, nekkutoon nit nit la woon comme ñëpp loolu njuumte bu rëy la ci àq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dafa euh, ñëw rek mat waaw yàlla da ko matal jukko yu rafet yooyu waa màkk ñoo ko seede demoon nañ ba di ko tuddee al amin Muhammad al amin Muhammad le moom lañ ko daan tuddee ndax jukko ju rafet yu nga xam ci moom ak njuubam keroog bi nga xamee ne ñu ngi koy génnee euh, muy jógee makka di dem madina paradoxe la mufaaraqa kabira ñoom ñu ko topp banaan ku ko jàpp indi ko ñu jox la téeméeri gëléem moo xam dee na moo xam mu ngi dund na ñooñu liñ baax la yépp keroog ci màkka mu ngi fanaan ci néeg yonent bi sallallahu alayhi wa seen or ak seen wurus ak seen aalis ak liñ am yépp moom lañ ko dénk loolu laay ne paradoxe la paradoxe la waaw yow nit ki yaa ngi koy trake ne su ngeen ko jàppee rey leen ko te li nga am yëpp moom ko moom nga ko dégg wóoluwoo kenn wóoluwoo sa benn mbokk yéen wóoluwantewu leen kooku mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la meloon kon jikko yu baax yi daf ko meloo am na bis mu ne leen waaw su ma leen waxoon ne ci gannaaw xur Màkka wii am na ay cavalier yoo xam ne ñu ngi ñëw pour conquérir Màkka ndax da ngeen ma gëm ñu ne ko dañ la gëm bu baax ndax yow loo wax dëgg la mosu ñoo nattu ci yow lu may dëgg kon loolu mooy dëgg yàlla daf koo baaxal euh, avant tout waaye ba mu leen waxee ne leen nag euh, yàllaa ma yónni loolu lañ mënta dégg kon yoon tibi sallallahu alayhi wa sallam mooy mooy kooku mu nekk nit ko am yërmande alquran euh, wax na ko laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum xarisun alaykum bilmuminina raufur rahim kooku alquran moo ko wax ci ci moom euh, alquran moo ko wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa euh, ma ñëw ci jikko yi nga xam ne euh, jikko yu rafet yi nga xam ne yàlla may na ko ko ci comportement bi mu daan am bu nekkee ci en temps de guerre nga xam ne lu jara jël la jamono bi lu tax ma jël ko parce que dañoo nekk ci jamono boo xam ne euh, tey ñu ngi sonal jullit ñi ñu ngi leen di sonal fële ci Palestine Israël di leen xëpp sawara ak weñ suba ngoon respecté wul benn norme euh, accord yi nga xam ne àddina bi ñoo ko tëral tëral ko ni kuy geer ni nga war a geeree respecté wu ci dara àddina yëpp nag ànd ak ñoom ci loolu euh, loolu moo tax ma wax yonent bi salaa salaam moom nan la gisee woon geer moo tax ma ne yonent bi def na fukki at ak ñett ci màkka euh, nekk ci minorité nekk ci minorité jàngal nit ñi nan lañuy ñuy nekkee minorité mooy dafa muñ nangu ñu lor ko jéemul défendre boppam jéemul xeex jéemul def dara fukki at ak ñett def na ko ci mag lépp luy coono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dund na ko foofu waaye mu muñ euh, ba mu dem madina bi mu demee Medina la am pouvoir taxawal cité état commencé am euh, former benn armée boo xam ne am na doole ci la commencé nag def li ñuy tuddee al xorub al istibaqiya te mooy guerre préventive mooy lan loolu self defence rek la mooy défendre boppam mooy gis na ne yaa ngi koy waajal mu cëb njëkk dal ci sa kaw loolu moo indi badar xeex am nga gis ne sallallahu alayhi wa sallam euh, xeexam yépp comme ni ko Baye waxee mës a nekk def lenn lu may défendre boppam waaw ci xandax faa rek la mës a nekk maanaam défendre boppam rek mais du jóg mukk di attaquer ay nit def ko ci kaw euh, bëgg a xeex noonu la nekkee moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ko Medina euh, nekk ko Medina yàlla def mu am doole comme ni ma ko waxee ba taxawal état am boobu xare Badar am gannaaw gi yeneen xare am waaye ànd ak yooyu yëpp xare su jotaan am na num leeni waajalee d'abord li mu leen njëkk a wax mooy euh, accord boo xam ne signé woon ngeen ko ak benn tribu ci tribu arab yi te mooy giiri arab yi accord boobu nangeen ko respecté ba am na giir gu ñuy wax Juhayna na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di dem di dem Badr romb na leen ñooñu daf leen a bàyyi ci jàmm lu tax parce que dafa signé woon ñoom ay accord yonent bi noonu la daan digal ñi nga xam ne mooy mooy mooy mooy taalibeem yi muy saxaaba yi waaye bokk na ci lim leen daan digal bu ñu nekkee ci guerre mooy bu ñu rey nitu diine te mooy bu ñu rey benn abbé boo xam ne jël arme di xeex waaw nitu diine daf ko respecté woon lu tax dafa respecté dafa bëgg diine moom diine ko tax a jóg moom moo tax mu ne leen képp koo xam ci diine lay nekk su fekkee ne jëlut arme di leen xeex bu leen ko xeex na ko respecté ñaareel bi mooy du ngeen rey xale bu ngeen demee bu leen rey xale bu leen rey itam euh, euh, jigéen bu leen rey jigéen te bu leen wor même bu fekkee noon bi la noon bi yéefar la sax bu leen ko wor maanaam lépp loo signé accord bu ngeen signé ak ñoom rek nangeen ko respecté su ngeen leen rayee ba am jekku leen ba am ñu ngeen rey ci ñoom itam seen jëm yi bu leen ci fo mooy li Israël di def waaw jël ay corps di ko traîner gannaaw boo xam ne kooku dee na xam nga ko ku lâche moo koy def nit ku lâche mooy def loolu nit koo xam ne roo nekkatul ci moom nga di ko fooyee di fooyee jëmmam loolu nit ku lâche moo koy def loolu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko daan aaye jullit ñi waaw moo tax mu ne naha an adami an an qatli shuyuuqi wal ajaa'iz wan nisaa fa qaala wala taqtulu shaykhan faaniyan wala tiflan wala sagiran wala mooy li ma waxoon léegi ñooñu ne ne buñ leen rey Abdullah ibn Abbas nee na yonent bi salaa salaam bu daan yóbbu nit ñi ci ger daf leen di wax ne xeex leen ci yoonu yàlla képp ku weddi waaye bu leen jalgati te bu leen ëppal tey leen bu leen euh, foye jëmmi yi nga xam ne da ngeen leen rey bu leen rey xale bu leen rey itam ñi nga xam ne dañoo nekk ci seen ay couvent wala ay église muy ay abbé kon loolu wute na ak lool li nga xam ne euh, sahaayina yi te mooy euh, sioniste yi ñoom ñu ngi koy jëfee di ko def ci kaw jullit ñi ñooñu njàngale mu bon moom la ñu ma ñëw ci jikko yu rafet yi nga xam ne amoon na ko ak soxna yi sallallahu alayhi wa sallam ku respecté woon jigéen la ku leen joxoon cër la ba sooy dégg nettalikat yi di nettali da gis jikko yoo xam ne du masa a kenn mënu koo dépassé maanaam jikko yu rafet yi mu doon dundee ak Euh, soxna ak jigéen maanaam gis-gis ñu amoon ci jigéen malheureusement nag gis-gis boobu nekkatul ci jullit ñi jullit ñi fi mu toll nii ñoom respecté wuñu jigéen loolu bokk na ci li ñu tardeel ñun boo gisee euh, Occident raw ñu ci lu bari parce que dañoo respecté jigéen te respect boobu islaam moo ko jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa ku leen daan déglu la di déglu seeni ndigal di leen di euh, déglu keroog bi nga xamee ne mu ngi def euh, sulxul udaybiya te mooy bi mu jógee wala dugg màkka dik ko saaba yi na leen da ngeen dem màkka yàlla wax na ma da ngeen fa dem da ngeen euh, dugg ci masjidil haram ñu ñëw bay dugg si problème am ñu signé ay accord ñu ne ko da ngay dellu loolu naqari saaba yi mënuñ ko dégg yonent bi génn wax leen wax wax mënu nangu mënuñoo dégg nangu ñoo dégg loolu ne yaa ñu ko waxoon mu ne ah maa leen ko waxoon de mais dama leen waxoon ne eh, waxuma leen woon ne ren lay doon maa leen ko waxoon mais waxuma leen woon ne ren ngeen di dugg màkka ba yëf yi nga xawee kii gars yi bëgg gën a jafeel dafa dugg ci biir bergenne bi waxtaan ak soxnaan soxnaam ñuy wax umu salama sayyidatna umu salama ne ko boo génnee bul waxat ak bul waxaat ak ñoom dangay génn rek nga loj sa géléem nga wattu soo ko defee rek ñu def ko ba mu génnee loj géléemam euh, wattu ñëpp daal di wattu def la def la mu def xalaat bu rafet boobu jigéen ju moo ko jox moo tax ma ne moom ku daan déglu jigéen ñi la jox leen gëdd fonk leen euh, daan muñ itam li nga xam ne day xew ci kër yi yëpp muy fiiraangeeg jigéen ak seeni problème seen benke ñenke ku ko daan ku ko daan muñ la am na bis sayyidatuna Aïcha moo ayee yonent bi nekk ci néegam euh, sayyidatuna Ummu Salama togg togg goo xam ne yonent bi da koo bëgg mu yakkal ko joxe ko ne dem leen yóbbu ko ko fa mu nekk xam nga loolu benn jigéen du ko nangu ba léegi waaw kenn du leen ci yedd damay wax ne jigéen ñi kenn du leen yedd ci fiiraange li tax duñ leen yedd yedd mooy nañ jël place su jigéen ñi ñu teg fa góor ñi léegi jigéen ñi di am ay jëkkër yu bari ñu xool loolu su amoon góor ñi rayante la ñuy def rayante la ñuy def bu boobaa ñoom waaw duñu yem ci ay fiiraange mais dañuy reyante kon nag loolu war naa tax ñu mën leen a pardonner loolu loolu nag moo xew ci kër yonent bi nga aye sa wujj di yàqal sa jab sa sa sa sa boroom kër naka la ñëw rek bañ indee bool bi rek Sayyidatuna Aïcha tëb rek euh, mbëkk bool bi mu daa mu daanu ci suuf bool bi tasaaroo def ay gaal yonent bi for lekk gi euh, defar ko ba mu baax ne xale yi te ngeen a muñ seen ndey day dafa fiir rek waaw muñ leen de seen yaay dafa fiir de loolu la ci teg bu doon am na ñu doon tey saaga la ñuy def wala ñu wax wax ju ñaaw wala ñu wane seen mer mais yonent bi merut daf ne dafa dafa noppi ne jigéen xale yi ci kër gi muñ leen seen yaay dafa fiir rek daal di jël nag ci biir kër gi jël ci dabi Sayyidatuna Aïcha yi dab bu baax jox ko ka indi woon yëfi ne ko demal nga delloo ko ndabam maanaam yàq euh, euh, réparé na li soxna si def delloo ko ndab li euh, muñ li nga xam ne moom la soxna si def ci ci kër gi gis nga kon ni mu doon comporté woo ak ñoom kon noonu la doon comporté ak soxnaam yi comportement bu rafet la am na ci ay kii yu bëri yoo xam ne du neex a laal bokk na ci nekkoon ku respecté woon jigéen ñi bi maanaam am kóllëre ci ñoom am wafa waaw mooy am wafa am kóllëre lu jafe la ci góor góor ñi li ci ëpp amuñ kóllëre ci jigéen waaw jigéen moo ëpp kóllëre ci góor moom dalay bàyyi nga dem fu nekk boo ñëwee mu accepté la góor nag du def loolu waaw eh, yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam moom dafa amoon kóllëre te kóllëre googu mu ngi ko doon wan mu ngi ko doon wane ci soxnaam si naan wax Xadija sayyidatuna Xadija génn na àdduna lu yàgg ndey Aïcha mooy nettali nee na yonent bi da daan saa bu ñu reyee xar day tib jël lu bari ci ndawal gi ne yóbbul leen ma ko ci xaritu Xadija yi ngeen jox ko ko maanaam am kóllëre ba mu jógee fu mu am kóllëre ci moom kooku noonu la meloon moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon euh, ku respecté woon jigéen la waaye amul foofu du waa këram rek ak njabootam am na bis benn jigéen ñëw bi mu ñëwee ne ko dama laa soxla dama bëgg ñu weet wax la li ma lay wax maanaam dama laa soxla da ko fekk ci biir nit ñi ne ko dama laa soxla ñëwal ma wax la xam nga loolu tey soo ko defoon benn kilifa ñëw fekk ko ci biir taalibe bi na ko jógal ñu ma wax ak yow ci koo xam ne mosoo ko gis boo moytuwut euh, mbir mi dana demee neneen mais yonent bi demeewul nenn yonent bi daf ne ko euh, ixtaari ay sikaki chiti ixtaari ay sikak chiti aqdi xaajatak seetal fu la neex nga taxaw fa ma ñëw fekk la fa fajala saajo sallallahu alayhi ak darajaam ji màgg jooju fekki ndaw sa fam taxaw mu waxtaan ak moom fajal ko aajoom ndaw sa dem kooku yonent